ak lu mu tudd ni waa ji dañ ko euh, lonk ay tuuma ci Prodac euh, ñëwul euh, ci procès bi ca la ca des indiwul preuve amul yooyu yëpp ci ay càgganteem la. est-ce que tey yaa koy jàppee càggante tey jii vous ne lui vous ne lui reprochez pas un peu ça. pas du tout yooyu yëpp ces imprudences pas du tout xam nga lu tax loolu yëpp su amul woon. du ñu yegg si fii ñu yegg tey te doon naa tiit lool. mbir mi yomb bañ jot ci pouvoir bi déedéet yoon wi dafa war a bari ay ndagg ak i xaaxaam ñuy dox di sekki di jàll bu ñu yegsee xam fi ñu jaar ba yegsi fii mën a walbatiku doon soldaaru askan wi lii yëpp mënul woon a ñàkk dafa bokkoon ci yoon wi te plus ñuy jege objectif bi plus muy gën a tar àdduna moo moo mel noonu sinon bu la yàlla yombalee lépp ni ngi ciy jotee yomb rek comme ñenn ñi après nañ koy yoree tamit la yàlla na El Malick Ndiaye sunu gan ñu fàttali ni bi mooy sa kaddu